entre ñi nga xamné ne satchu alalu ñoy satchu alalu askan wi ñi nga xamné ne loubal alalu askan wi ak la majorité de la population mi nga xamné dafa sonn dafa dam dafa tayi ndax les options néocoloniales les options antipopulaires les options antidémocratiques du président Macky Sall lolu ba kañ deux manifestations à Guédiawaye interdites ñaari manifestations Dakar contre la vie chère interdites une manifestation à Tuawen contre la vie chère interdite Oui, cinq manifestations Bakagne. Bakagne. cinq manifestations interdites Bakagne. Sénégal xool leen li xew ñu ngi ci rond point bi nekk ministère de la communication te mu nek wetu lycée Blaise Diagne contre a dem bëgg dem manifester place de l'obélisque contre la vie chère Sénégal santul Maki. Sénégal santul APR Sénégal santul Benno Bokk Yakar. ñuy wax les policiers la nga xam ne dañu bëgg a jàpp ñu dit xamal amul ceebu policier ak ceebu wa frappe amul ceebu policier bul wàccee bul wàccee bul wàccee bul wàccee amul ceebu policier ak ak ak ak wa No Lank amul ceebu policier ak ceebu wa Y'en a marre amul luwaasu gendarme ak luwaasu wa frappe amul luwaasu militaire ak luwaasu wàccee. frappe police moo ngi nii ñu bloqué. nous sommes avec lenn rek laa laaj. Demba bul wàcce. nga wàcce wàcce boo xam ne mati. atabar atabar. loo ko toog Abdou Gueye. ceeb bi dafa cher. dund bi dafa cher. luwa bi dafa cher. bi dafa dund bii dafa cher. dafa cher. Macky Sall mooy kan. ñun dañoo sonn. dafa cher. ceeb bii dafa cher. ceeb bi dafa cher. dund bii cher. luwaas bi dafa cher. ceeb bi dafa cher. luwaas bi dafa cher. ceeb bi dafa cher. luwaas bi dafa cher. dund bi dafa cher. courant bi dafa cher. par la presse. ceeb bi dafa cher. nous sommes là. dund bi dafa cher au rond de la ministre de la Communication. Là, nous sommes sur la page du Frère Français Continuez à partager la sur Nous sommes encerclés par la police. Nous sommes encerclés par la police. De notre côté, il y a Abdou Karim le camarade Guy Marissania, Les camarades d'Agnon Lang, ils sont admis. Le Sénégal est là. dafa continuez s'il vous plaît à partager le live. partager Partagez partager c'est sûr sénégalais nous demandons la police. voilà. ils veulent casser nos vitres maintenant. ils veulent. non non non ils veulent casser nos vitres. c'est correct. bul wàcce de bul wàcce waaw bu la gësam ba nga tiit bul wàcce amul tit, amul ragal doo am benn problème ñun ñooy am problème amul benn problème ci nañu préparé le live ah ñoo ngi noonu trompé gis ngeen ministère de la communication mooy Blaise Diagne bi ministère de la communication ministère de la communication ak Blaise Diagne waxal Blaise Diagne la police Merci. Il y a les autres camarades. Nous demandons aux camarades de les camarades du P d'avancer. Les camarades du UP avancez. Avancez. Avancez tout. UP, avancez, s'il vous plaît, continuez à parler là. Dites aux camarades de UP d'avancer. Nous sommes sur la page frappe. Demandez aux camarades du P d'avancer, s'il vous plaît. UP, avancez. Avancez. UP, avancez. Avancez encore. Avancez. Avancez. Donc, de l'autre côté, vous voyez là, il y a la police. On commence à les arrestations commencent. Ils commencent à arrêter. Ils commencent à arrêter. On n'a pas encore les images, mais il y a eu des arrestations. S'il vous plaît, continuez à partager. Partagez, partagez. Il y a, il y a eu des arrestations pour l'instant. Abdou Karim, il est également dans sa voiture avec les autres camarades de Nolang. Le frappe est là. Nous sommes là. La population aussi est là. donc ñoo ngi barré. ils n'ont qu'à barrer et on reste là toog là jar ko jar ko bàyyi ko bàyyi ko ñoom ñuy barré ñoo ngi baare gis ngeen ñoo ngi baare partager les live il faut informer mbokk yi dañoo defoon benn délégation délégation bi ñeenti oto la bii mooy benn benn ci oto yi am na beneen oto bu weex bu nekk ci kanam foofu la ñoom Abdou Karim Xrum Xax nekk am na beneen oto bi nekk ci ginnaaw foofu la ñoo ngi bëgg a yëkkati suñu oto bi

courant bi nga xam ne dafa cher suukar bi nga xam ne dafa cher diwlin bi nga xam ne cher luwaat bi nga dafa cher courant bi nga xam ne dafa cher téléphone bi nga xam ne dafa cher paas bi nga xam ne dafa cher Sénégal di détourner alu Sénégal na wiiri na foo xam ne ba baaraam rek a fa tout baaraam rek. tout vous encore. oui. nous aussi. Vous comprenez. nous aussi. Actuellement, vous êtes en train de gêner toute la circulation derrière Non, c'est pas. Oui, oui. Ah, vous, comprenez Oui. Vous comprenez Vous comprenez Vous voyez l'embouteillage que vous créez derrière. Mais qu'est-ce que vous nous proposez On vous propose tout simplement mm-hmm. de venir. On va vous dégager et puis on va vous laisser partir. Non, de venir où Venir avec, avec nous. Où ah, ça dit que je sorte, que je rentre dans votre voiture, et après je vais rentrer gentiment. Non, non, non, ma voiture va continuer. Va, va Non, non. Ah, ah ok. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne vais pas descendre. Tu ne vas pas descendre. Actuellement. Oui. Vous me Man, man. Pour qu'on dégage. Man, man, non, non, non, Nous, on est nombreux ici. Nous, non non ah, ñun ñëpp ñu wacc légui pour lan parce que manifestation interdite. Mhm. vous avez non non on n'a pas encore commencé. à on n'a pas commencé. obélisque mooy manifestation bi ñun egguñu kon commencé guñu manifester yeen ñu arrêté fi yeen kay da ngeen waron xaar ñu egg obélisque wala RTS ngeen jàpp ñu ñun commencé guñu manifester dañuy dem obélisque. xaar lañu non non non yow yow yow xam nga ne buñu ñu tribunal kenn duñu japp parce que li ci yoon bi lañu nek yow xam nga ko.

Oui. Oui. Pourquoi vous avez refusé de nous parler Non. À qui ah, Mais lui, il est là, on lui a parlé. Oui, on a verrouillé, mais vous nous entendez vous, nous entendez Non. Non, non, non. Non, non. Pourquoi vous nous arrêtez courant Boucher, ñëpp policier ak enseignant. voilà. Nous fi xew kii ñun dem manifester place de l'obélisque la place de l'obélisque ñu arrêté ñu bëgg ñu avons ñun amuñu infraction commencé à ñu manifester avons suñu auto. Nous avons une place de l'obélisque Nous ñu woowee sénégalais pour manifester Nous, lan boucher. bu cher ndax lan diw bu cher ndax lan suukar bu cher lan courant boucher.